cher jeu de jàmm dalal leen jàmm ci la gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko ak l'observateur mu def interview ancienne présidente du conseil économique social et environnemental Mimi Touré moom Aminata Touré amul lu mu yàkkul Idrissa Seck tey sàkku ci nguurug Sénégal ñu def audit ca nu mu gën a gaawee kuréel jii di 16 depuis bi ñu ko créé en ba bi mu fay jógee moom Mimi Touré teg ci di xam ne ne sama fulaak sama fayda sama personnalité jëm ci ëtt politique bi Mimi xamle ni fii ci réew mi am fi ambition du délit waaye nag liñ fi seetlu moo ku fi am ambition ñu jëm la dammant enquête yéene kaay moom kay dafa mel ni Idriss Seck dafay ñaawal Mimi bi mu jëlee kuréel gii ba léegi ñoom ñaar jaaratuñu taal ci guerre dëgg la nekk yéene bi ne lii dëgg kay moo di ci boppam la xolam di baax moo mënul gis Idrissa Seck ci bopp 16 bii ndaxte depuis 2013 amul lu Mimi yekkul ki nga xamante ci Macky Aminata Touré mënul concevoir ñu ne sa place bii nekkoon ci nguur gi Macky Sall jël la ko jox ko ki nga xamante ne moo di Idrissa Seck Walf Quotidien moom di ñu xamalaat kan mooy Idrissa Seck coowam lii ak chantier de Thiès yéenekaay bi ne Idrissa Seck boo ko bëggee xam rek mooy nit koo xamante ne nii gëmul boppam la muy wax ak la muy jëf du mës a bokk yéenekaay bi dellusiwaat ci alliance ak Macky Sall jàppee Idrissa Seck koo xamante ci ne nii dañuy dem ba daal di mucc ñu bàyyi leen ñu nekk ci Espagne yéenekaay bi ne kenn du ci wax dëgg nag ñu ci bëri dañuy victime wu ñenn ñi naan dama jubawut ak suñuy waa kër ñii naan damay am ay harcèlement politique ñii naan dañ may xeex ndaxte sama xeet dafa néew doole ca Sénégal ñii di indi ay problème u diine dañu ma xatal ci sama ngëm-ngëm ñii sax di wuyoo góor jigéen ak yeneen yi yeneen i tur yoo xamante ne nii mooy tax tubaab yii mën leen a bàyyi ki seen réew yii yéenekaay bi ubbi ci xët bi yaatu vox populi moom dellusiwaat ci tendance bi nga xamante ne nii mu ngi am ci réseaux yi rawatina ci Facebook bi ay groupe lañuy créer ndaw ñu bëri nekk fa di toppkaa yi nag am na ci sax ñoo xamante ne nii noonu la ñu tuddee seen bopp groupe bi toppkaa am na ci beneen boo xamante ne nii kaa wës la tudd nekk ci facebook bi topp ñi nga xamante ne nii dañoo siiw di ci gaaruwaale les échos yéenekaay yi moom dellusiwaat ci coowu Aïda Ndiong ak 5 milliards yi nga xamante ne nii ñu ngi koy tudd ci kaam yii yéenekaay bi ne moom Aïda Ndiong Aziz Diop ak see yi dañoo mujjee renvoyé waat seen jugement bii ci jamono boobu Diop Iseg moom génnee li nekk ci xolam tey ñaawlu li nga xamante ni nii moo am ci seen jugement bii këram gi ñu jël nekkee ca diwaanu Sacré-Cœur jox ko jabaram ji nga xamante ne nii dara tegawul ci yoon la tribune yéene kaay ne li jafee jot kay jamono ji moo di suukar même bu fekkee ne am na fi jot ko jamono ji lu metti la commerçant yi fi mu toll nii ñu ngi ci ay difficultés yu metti réew mi quotidien moom dellusiwaat ci wayjur yi nga xamante ne nii seeni njaboot ñu ngi dund feebar yu doy waar di ay bébé te nekk ci danger ndaxte vaccin yi nga xamante ne nii moo leen di génne ci seen feebar yii moo commencé manqué ci réew mi te lépp nag bu Sénégal la ndaxte ñoom ñoo war a verser lu tolloog 3 milliards de francs ba léegi génneeguñu ko lii moo indi yi nga xamante ne famille ñoo ngi ko yor gannaaw ba ñu amee seen doom yoo xamante ne nii dañu am feebar yu doy waar L'As Quotidien moom dalal DG bu deer mu yëkkati kàddu ci immigration clandestine yi ne ndaw ñi ñoom ci seen bopp ñoom ñoo gëmm tëxlu bëgg a xaru moo waral dee gi bari lool ci géej gi kuréel gii di deer nag moom li mu mën a financer moo ngi koy financer et même bu jëloon ay milliards yi milliards di ko financer gone gi nga xamante ne nii gisul lu dul dem ci géej gi dem Europe ne day teral ay waajuram ko téye faw mu dem kon nag problème bi problème mu jeunesse bi la faw ñu conscientiser leen critique yéene kaay moom nii yi fas yéene nañ koo amal 25 novembre bi ñu jëm ñoom nag li leen naqari moo di ni leen gendarmerie sonalee ci kaw tali bii ci seen i këyit rek lu tolloog juróom-ñaar téeméeri gendarme xam nañu leen nekk ci réew mi te sonal leen lool ak lu tolloog 1000 policiers yoo xamante ne nii mayuñ leen benn yoon jàmm ci tali bii Sud Quotidien moom dellusiwaat ci duggub Idrissa Seck ak Omar Sarr ci biir palais de la République yéenekaay bi ne Macky kay fexe na ba Idrissa Seck ak Omar Sarr jëriñatuñu dara ci réew mi yàq seen personnalité yàq seen crédibilité ñoom daal fi mu toll nii safatuñu dara ci réew jeexalee li gën a fës ci atu yëglekaay yi ak la libération mi del suwat ci barsak barsak gii ne amatina beneen gaal goo xamante ne nii këppati ci Cap Vert gaal gi téeméeri doomi aadama la defoon ak juróom fukk juróom benn fukki doomi aadama ak juróom benn dongu ñoo dellu si am na ci sax benn rescapé boo xamante ne nii bi ñu ko laajee def ne bii gaal gi di explosé ñenn ñoo mënoon mucc mooy ñi nga xamante ne nii dañoo miin fay waaye problème bi mooy bu ñuy yegsi ci tefes yi askan bi dañ leen di daw ñoom jeunesse bi li ñuy naqarlu moo di lan moo tax ñu leen di jëliwaat ci Europe di leen delloosiwaat fii ci Sénégal lii moo leen naqadi ciy Sénégal